tey ba suba ñu ngi dajaloo fii ci Ziguinchor euh, ñetti région yi mooy cas mooy région Casamance maanaam région Ziguinchor kolla ak Sédhiou pour xalaat ci mbàllum naka la ñuy def pour sécurité wu région bi ñu mun ko càmbar euh, ci diggante takk der yi association yi ONG yi ñun ñëpp ñu mun a toog xalaat euh, naka la ñuy def parce que amoon na waxtaan bu ñu lël bu amoon dakaar

waaye ñun liñ ciy indi ñun comme euh, département de Goudomp nga xam bokk nañ ci département yi nga xam ne ni ñoom ñoo démarré projet bi ak département Guédiawaye dañu jot a ay activités activités yooyu nag liñ ci jublu mooy renforcer collaboration bi diggante force de défense de sécurité ak ak askan wi fexe ba jafe-jafe yi askan wi jànkoonteel ci wàllum sécurité ñu fexe ba euh, population bi am ci am ci conscience pour mener les forces de défense et de sécurité mais là, ersal euh, euh, comité dialogue au niveau de la commune de Grom Il na mais yëpp da ngay taxawal ay des composition bi day day dajale ñëpp ñu particularité Il su euh, zone frontière Guinée Le problème yu est day Sénégal ak Guinée comme Saturn problème ñu ni kon ñun buñ pour ñu régler problème sécurité bi il faut aussi ñu am fa nga fa nga xamné ñu fay dajé suñu mbokk guinéen yi difa waxtaan difa nassé pour que dialogue bi aussi dépasser frontière donc lool motax euh, amna expérience bu intéressante bu ñu am ci département Goudomp ci bu nek département frontalier té tay ji président comité de dialogue sax bu Goudomp dina mëna leen wax ci résultats yi jota engranger jot activité jota dérouler ak perspective yi ñu am ndax dal na xel aussi que ni nit ñi amna engouement te tey jii tax na nit ñi conscient ni ku sécurité le concerne la d'abord man sama sécurité c'est d'abord mon affaire avant d'être l'affaire du de l'agent de sécurité donc loolu aussi nous ngi koy inculquer pour que nous ayons ñu am euh, comportement citoyen pour participer pour que ñu faciliter règlement conflit mais aussi nous prévenir c'est anticiper pour que yenn conflit sax bañ am te lu yu waxtaan koy indi donc euh, mën nañu wax ni nous avons ci ay ay acquis saluer tous les acteurs parce que bàyyiwuñu une couche de la population aussi saluer les acteurs nous wax vraiment dynamique bi nous ko maintenir Mais yombal suñu en tant qu'autorité mais nous yombal aussi liggéeyu force opérationnelle de défense et de sécurité. Nous euh, avons évoluer comme nous avons koy on le dit toujours il faut que chaque citoyen se dise ma sécurité c'est d'abord mon affaire avant d'être l'affaire d'un autre que ñu te pas sax def forces force défense de sécurité bi mais genre prise de conscience la ba nga xamé ni day permettre citoyen bi su se la nga xamé ni jaadu xamna ni li parce que la première chose qu'on avait constaté la dénonciation de am population yi duñu dénoncer population yi duñu ce am ce comportement Si vous bo nek ci askan nga gis lu yakal askan wi yoon la nga nga dénoncer ko donc mom lañuy wax détection signalement dénonciation mais dañ nekkoon benn société ba nga xamee ni boo dénoncé dañ lay accuser comme quelque dañ lay joxoñ mu mel ni traite wala yu mel noonu donc loolu dafa nekkoon ci communauté bi ba nga xamee ni nit ñi dañ koy ragal a def alors que gis naa ne lii jaaduwul lii mën na yàqal at askan wi ma dénoncé ko loolu c'est un acte citoyen donc il faut que ñu ñu xëcc xëcc leen ci loolu ñu xam ni boolee nit ci lu gis ku ko def lu nga boolee te nekkul da ko da ko bëgg a lor nekkul da nga ko trahir mais da nga def un acte citoyen parce que intérêt général ngay défendre donc démarche bobu lañu wax moy moy démarche collaborative bi bi nga xamé ni population yi mëna jappalé ci partage d'information partage de renseignements. yépp ay ak ak aussi des ak yone action citoyenne nga xamé ni population yi nañ ko def pour faciliter liggéeyu liggéeyu force de liggéeyu autorité ak force défense et de sécurité donc genre prise de conscience la ba nga dañ ci xëc population bi yépp ñun tay lu nek di def ci maanaam. takk der yi ak communauté ñu mëna a ci wàllum karange parce que fu nga xam amul karange kenn mënu fa dund donc tamit mënu am euh, ñu nga xam ne ngi ci walum karange sans communauté bi mais communauté bi mënu mënu dund ñom tam tant que ñu am donc puisque ñom dañu nar nek ensemble donc ñun ñu ñu liggéey ci projet bu ñu approche collaborative sécurité collaborative manam ñu mën a ci walum lan moy lan moy jafe jafé karangé ci ci suñu gox ensemble ñu hol nak lañ def pour indi yeneen jumtuwaay pour def pour que pour gëna a euh karangé ci ci Goudomp donc lolu mota ñu commencé depuis 2020 té amna ci ay jéego trop mais atelier bi ñëw fi té dafa ñeu pour renforcer ñun lu ñu def pour que ñëpp xam que lolu doon na lu nga xam ne ñëpp ñoo ko nar a ñoo ko pour que Sénégal am jàmm am am dal vraiment indi développement économique pour que ñëpp ñu jëriñu ci. ci yu mëna fa manam gisoon nañu bu avant ñu commencé population ñu ngi feulé force de sécurité ñu ngi dañ comme ay opposants donc mais tay dem nañu ba sécurité. que ñaar yëpp parce que qui bu fi parce que nek na pour bo, donc takk der yi mu ngi fi pour suñu karange parce que mënoo nekk ci village ou bien sa kër boo amulee sécurité boo amulee ku la aar mënoo nelaw donc ça veut dire que tey il faut population population dem na ba xam loolu léegi tey boo demee gendarmerie lu am rek xam nga daana ku am problème da koy fajal boppam mais tey bu amee dara dañuy dem ci ci gendarmerie ou bien ñu dem ci militaire yi bu ne jege ne leen lii moo am loolu dafay wane que dafay indi lu nga dal mais tamit bu mes problème gis autorité ou bien FDS dañuy oote tout ce par un problème Jakarta bu amené ni ndaw mais tout de suite da autorité ñu ñu en concertation boobu cadre cadre bu ñu comité communal def comité communal de collaborer bobo boobu bokk na ci ay FDS bokk na ci autorité beaucoup na communauté yep jeunes yi ma jigéen yi ñëpp ñoo même qu'il même kilifa nous ñu courir ci bob donc bu amee dara ñoom dañuy oote toog waxtaan régler problème bi jamono ñooy donc loolu la ñu bëgg mu wasaaroo Sénégal te atelier bu am te dafa ñu gën a dëgër loolu pour que vraiment ñun dañu soxla jàmm Sénégal boo gisee lu nekk di réussir suñu si suñu frontières yi ak ñu nekk au niveau mondial il faut que ñu jël approche sécurité collaborative pour que takk der nangu nekk il faut que population dugg seen loxo mais il faut que population nangu nekk dañuy nar a déglu tamit euh, takk der yëpp pour ñu ñu doon benn liggéey euh, karange mu doon karange bu nga xam ne karange bu baax la mooy dal dal ak njëriñu askan wi yëpp. donc euh, tey Goudomp am na problème yu ñu gis maanaam ay sàcc ay ay cambriolage ay ay braquage foofu si biir mais tey vraiment dara bu xewee rek da ngay gis léegi gars yi signalé balaa kooku di génn foofu fekk. de technique ko loxo donc mu doon lu nga de de de de, de dafa changer donc bon boo gisee pas problème le problème euh, Covid bi bu mu le 14 mars la ñu décret bi le 16 nous am circoncision xam nga loolu ci dëkku Mandeng ñu ñu dugal njulli le 16 nga ne le non ñu bàyyi xam nga loolu mënoon a indi fitna mais voilà puisque covid bi am donc tout de suite communauté bi. fausse autorité ak EBDES ñu ñu ñu ñu toog ñu waxtaan ba finalement problème bi ñu réglé ko sans amul amul amul xiiroo ak ŋaayoo donc loolu moo am jéego yu bëri yu nga xam ne ñu nekk ñu ngi koy def Goudomp ñu bëgg léegi won ko ci yeneen département yi mais aussi ci région euh, ci région yëpp Sénégal pour que vraiment Sénégal mu doon comme nu meloon